voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellu si waat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak El Hadj Malick bi ñu dénk wàllu communication euh, ci wàllu Pastef chargé de com ci wàllu Pastef muy parti bi nga xamee ne ki ko jiitee moo di Ousmane Sonko euh, ku yore communication nag ci mbir da nga war a xam la ca kaw la ca suuf ak yëf yéen a muy doxee alors euh, El Hadj Malick su ma la romboon ci mbedd mi ne la yaay kan ci Sénégal la may waaw jërëjëf malik Malick Maodo sama turandoo sama sëriñ euh, di nuyu d' abord waa kër gi tàmbalee ko ci euh, directeur général bi Baye Omar Gueye ak mboolem ñu fi nekk ñëpp. Mhm. di nuyu sama turandoo El Hadj Malick Ndiaye tamit. waaw euh, El Hadj Malick Ndiaye day benn ndaw Sénégal la. Mhm. jugee ca mën naa ne gottub jolof ba maa ngi bokk Daara Jolof. Mhm. nekk ci département de Linguère. Euh, di profito ci occasion bi di nuy tund jolof yëpp rek mhm. euh, jiital leen ci ginnaaw bi mu nuyu waa Sénégal ah foofu tamit ci wàllu école arabe école primaire ak yu ni mel mhm. waaye maa ngi amee mu lycée Limamoulaye laataa ma def samay ay études supérieures géejawaay liggéey ci privé bi waaw géejawaay nekk liggéey ci privé bi depuis boobu nag waaye tamit ci wàllum politique am nañ tuuti jaar-jaar ak ku ñu wax professeur Ibrahima Fall depuis 2011. Mhm. Euh, nga xam ne candidat la woon ci élection 2012 yi. Euh, nekkoon ak moom nag 2015 euh, ñu ñëw dugg ci Pastef yàlla def ñu yor ci wàllu communication bi boobu ba léegi donc mën naa ne. en résumé Malick Ndiaye la. Mhm. pur produit du Sénégal. d' accord voilà El xam nga Pastef moom daanaka parti la boo xam ne bii fi ñu toll nii. lu def waxu te lu ay du jàmbat fi mu toll nii moom coow li ñu Sénégal gépp ko bokk waaye yéen defe naa kenn gën leen cee taq waaw léegi léegi euh, démb wala gouvernement bi def na ni mu aada woo daan def di jàlloog taskatu xabaar yi am na nag lu fa génn Sidiki Kaba li ñu wax nag xel mën na ko war a nangu nag nañ bàyyi yëf yi mu déroulé danañ ubbee ay enquête fi yëf yi war a mën a leere mu leeral force occulte force occulte yi nag ci boo déggee wolof am na fu ñu ko féetale waaw ca yëf yaag nañ waxee euh, gouvernement bi yoonam néewu ci ban jàngat nga ci am waaw xam nga Hadj de laataa loolu euh, ñun wax dëgg yàlla Pastef bu ñuy juddoo ba léegi lu ne tam nañ ñu ko comme ni ñu koy waxee ah waaw ndax euh, yàlla dafa dogal ñu ñëw indi wenn doxalin ci politique woo xamante ne nii xëy na tàmmuñ ko woon di ko gis Sénégal mooy di duut baaraam fi nga xamante ne nii foofu la yëf yi nekkee te suñu koy wax dëgg rek lal ko njëriñu Sénégal rek lal ko sans embâche duñ ci nekk di def li ñuy wax mais autour du pot maanaam di di bay bayal di wër wëral wala di layam layami comme ni ñu koy faral di waxee léegi dañ koy wax mu leer jaar ci digg ba ginnaaw politique bu ni mel lañu indi fas yéene naa wax Sénégal yi naka lañ yore suñu réew ci anam yu baax yeeg ci anam yu bon yi donte anam yu bon yee ëpp fukki yoon mhm. loolu nag du neex ñi nga xamante ne nii ñoo yor réew mi waaye du neex ñi nga xamante ne nii aussi ñu réew mi waaye ñi yor réew mi ni ñuy doxalee arrangé na leen ëllëg ñoom bu ñu yoree réew mi loolu nag day tax ba yow xëy na duñ la gaaw a adopté moo tax gis ngeen ca njëlbeen nga ñu doon wax ay salafiste lañ ay wahabit lañ yow xam nga ne man a yow ñoo bokk pas-pas. waaw ci lu wér waa waawoon lañ. Eh, ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci biir parti bi doon nañ fi wax Ousmane doon nañ fi wax lu nekk jiiñ nañ ñu ko fi dem nañ man ñun dañ koy faral di tooñ di wax sax ne xëy na Ousmane Sonko wasin na rek lañ déggagul mhm. léegi nag loolu bi coow li amee yaakaar naa ne gouvernement bi li mu def mooy li mu yàgg di def mooy lan bu mbir amee au nga jàkkaarloog sénégalais yi wax ak ñoom dëkk wax li xew ci mbir moom ak li ko waral duñu ko def tubaab yi lañuy waxal dañoo organiser seen communication mais soo xoolee tubaab yi lañ doon jéem a rassuré. c'est-à-dire ministre de l'intérieur bi mu njëkkee génn di wax waxu force occulte tubaab yi la doon rassuré ndax discours ba mu def ca français ak la mu wax ci wolof bokkul ba muy wax ci wolof moom da doon neexal sénégalais yi waaye ba muy wax ci français tubaab yi la doon rassuré di agiter ay questions euh, force occulte ak yooyu ñun li ñu yàgg wax dafa leer ñun ci réew mi lañ juddoo màggee fi dëkk fi jàngee fi choisir man fee liggéey donte amoon nañu opportunité xëy na dem bitim réew wala dem feneen mhm. ñun bu Sénégal di tàkk amul fenn bu ñu mën a daw ndax amul beneen nationalité ñoom ñoo ko am ñun ndax ñun dinañ dem di lëkkaloo koo xam ne dina taal Sénégal la moo ñu ci jariñ après force occulte yi xëy na mooy ñi nga xam ne ñu ne Sénégal ginnaaw ba mu amee indépendance plus de soixante ans maanaam soixante et ans mënul dem fenn te Sénégal ñàkkul dara ñi ŋànk Sénégal di ko ŋacc askan bi di torox ñooñu waxuma la force occulte waaye ñooñu force avérée la boo xamante ne nii ñi ngi leen di tëg bët saa su rekk ñooñu nag ñun ñoom la ñuy xeex mooy maanaam ñi nekk ci nguur gi ñoom nag nekk nañ fi doon jaay doole ba xëy na ci 8 mars bii nii ñi daj lu mburu daj daju ci yëf yi métti leen loolu am na ñenn si ñoom sax ñu taxaw ñu ne dañoo bett mbett ñu bettuñ leen dañoo jàppoon di toroxal askan wi di toroxal askan wi di toroxal askan wi yaakaar ne ñoo yor doole ji askan wi xëy rek benn lancement bu ndaw ne leen hé yam leen doole ji ñi ñoo ko yore te nii lañ bëgg ngeen doxalee réew mi d'accord nañ si loolu lépp loolu jàll na bi loolu jàllee nag ci point de presse bii gars yi def barki démb Sidiki Kaba kay dégg nga li wax nee na danañ ubbi benn buntu su ko defee li ci war a mën a leer leer ci mais dafa faxas deru gouvernement bi parce que ñoom moom pour moom euh, manifestation yi amoon bon xëy na le fait de ne pas déférer ci convocation wala boog tardivement wala yeex a dem geeg yooyu ñoom bokk na ci seen ay argument yu ñuy faral di yëkkati ah ne affaire bi euh, kii am na koo xam ne ki sax toog na fii ci jano bi bokk ci APR nee na euh, kii woote Ousmane Sonko ci discours am bi mu def ba xale yi génn pratiquement combat mortel bobu wala mortel combat comme ma noonu ko duppee ci loolu lepp cadre la ci biir alors c'est que donc euh, ñom japp nañu né dal euh, seetu leen ci daal. waa xam nga ñom encore une fois lima yag di wax rek mbir bu amé dañu waroon a ñëw wax sénégalais yi lu leer nañ mbirum complot bi waroon nañ ci wax. complot ñoo comploté. ah bon dañ leen sanctionné ndax ñi comploté ñoo taal réew mi ndax ba yëf yi tàmbalee ba léegi lépp luñ fi wax. lu muy wone mooy mbir mi kat politique dong nga ko lal xëy na nag yëf yi ñoom dem na ba ëpp leen doole waaye tey jii nii dafa am lu am solo su ngeen fàttalikoo ci jamonoy pétrole bi bi ñuy coow Alioune ak yooyu nguur gi génnoon na def mémorandum ah. ragg der Alioune ñoom ragg ci seen der ba mu set wecc ne maanaam defuñu dara defaat lu ni mel adressé wu population international communauté internationale bi encore une fois bi tamit bi bu amé journaliste yi fa nekkoon sax ñoko doon poser parce que man seetaan naa ko ne ko ñun li ñu gis moy tay ben avocat mo taxaw di ragg deru euh gouvernement bi di ragg deru euh, xëy na euh, force de l'ordre yeeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu nag ba paré orienté yëf yi nag jëmale ko ci Ousmane Sonko ak ñimu andal lolu loolu nañ ko ci nguur gi tàmm ñu di wax dëgg. pour pour yow c'est une communication orientée quoi parce que. c'est une communication non seulement orientée mais tendancieuse c'est-à-dire que. dañu tàmm dañu tàmmul di wax dëgg askan wi li ñu tàmm mooy jéem a boo xoolee démb nguur gi la ñu doon raggaat defaraat xar kanamam par rapport ak communauté internationale parce que li am Sénégal ak li ñu wone vidéo yi wone ko mii ay ñaawteef xam nañ ne communauté internationale bi yépp Sénégal da leen bett mais lu mel nii naka la fa mën a amee ndax seen mémorandum boobu ñuy wax ne dañuy def après commission d'enquête mouvement M2D génn na wax ci te dinañ def memorandum aussi mais liñ wax moy ba commission d'enquête bi naka lay demee bu fekkente ne yow yaay juge et partie parce que Sidiki Kaba mom condamné na opposition bi rag deru gouvernement bi ba paré ne lay def enquête. donc yow li nga wax moy cela donc il a déjà pris parti. mais yag na dafa lèr mom xey lim wax dafa lèr daf na gaay yi li ñu jël yépp tor bi yëpp bëgg ko tek gouvernement bi amul. am na nag loo xam ne saa su ne ñu ngi koy taafantaloo président Ousmane Sonko dafa bañ a ji est-ce que këram lañ ko fekk jël si ko fekk suñ ko këram jël si ko daa jóg di dem ngir jàkkaarloo juge bi nañu wax ñoom lan moo tax nangu wuñ woon mu yegg ci juge du sekk ndax bi Ousmane Sonko jógee këram di dem laataa mu yegg am na lu xew ci diggante juge du Seck ak ñoom. ah bon waaw xam nañ ne bu ñëwoon dañ koy lu bàyyi ko mu ñibbi. fekk na boobu juge mu fekk moom ma ngay delloo dossier bi ñoom ñoo créé système blocage bi du kenn ñëpp gis nañ préfet bi mu taxaw ci digg bi di joxe ay ord ñu bloqué fexe ba créer beneen situation daal ne waa léegi sax nag demul tribunal dañ koy yóbbu gendarmerie parce que trouble à l'ordre public ak participation

waa mais est ce que xëy di dem ñu ne la doo yegg. mais est ce que Ousmane Sonko tam ci discours am jàggoo ci baat buy wuri ne génn leen. mais Ousmane Sonko def na. même si c' est indirectement. Ousmane amul ay indirectement moo xam nga sànq ci njëlbeen wax nee naa la ñun lu ñuy wax dañ koy wax mu leer Ousmane Sonko la mu wax loolu la sénégalais yu bëri wax daf ne li nga xam ne mooy constitution wu Sénégal dafa may sénégalais bu ne. face à l'oppression maanaam bu ñu la bëggee faagaagal toroxal la ci anam yu dul noonu war ngaa mën a fippu résister loolu constitution Sénégal ak wax Ousmane Sonko ne man damay jël droit boobu constitution jox ma dinaa résister bañu ma wuy ji bañu ma procès am bañu ma dara waaye ci anam yu ñu ko bëgg a doxalee ñu ko nangu te loolu sénégalais yi xam nañ ne yàggul dara gis nañ niñ ci salfaañee yoon ñu demee ba sénégalais amatuñ benn kóolute ci yoon loolu mooy njëkk a tasub dëkk ndax bu ñu waxee ne dafa am justice ci dëkk ñun ñu def ay ñu yàgg leen ko wax yàgg leen alerter ne leen justice bi ak assemblée bi ni ko exécutif bi téye maanaam ni ko Macky Sall téye di ci def lu ko neex dinañ dem ba mu yàgg li anglais di wax no justice no peace maanaam fu fu yoon amul jàmm du fa am looloo nara a dab Sénégal dem nañ ba Sénégal yi léegi wóolootuñu justice li ci gën a garaaw di ñëw mooy dem nañ ba Sénégal yi di démystifier maanaam suñu ay force de l'ordre ak yenn institution ci ci ci ci ci ci ci nomenclature force de l'ordre yoo xamante ne nii Sénégal yi dañ leen wegoon am fu ñu leen teg mooy maanaam ñu utiliser dig gis nañ ñu jàppee suñu ay ay ñoñ ci anam yoo xam ne agent dig yi koy def sax da ngay xam ne ils sont mal à l'aise

pilier maanaam ci li nga xamante ne ni mooy islaayu république mais Malick institution yi mais écoute Malick mhm. yéen seen problème mooy li leen waa APR tamit di di di di di reproché comme ku mel ne Abdou Mbow toog na fi wax ko souvent da ngeen di génne ay mots yoo xam ni nee na du ngeen am benn preuve accuser pour accuser bon ñoom loolu lañ gis ah 94 milliards yi ana fu mujj nee na def nañ enquête parlementaire ñoom ñoom moom moo ko xam ah, ci dimanche bi passé moo fi doon jaar waa APR koo ci laaj koo ci laaj da naan la Sonko li mu lay wax yëpp amul amul amul amul justificatif la veut dir quoi kon du ngeen bàyyi li ngeen wax kon 94 milliards bu fekkente ne Sonko amul justificatif duñu ñu ubbi procès bi leral ko amul justificatif ñu japp tej bobu kay gëna na yomb jor wor complot way lan lañ def de déglul de of nak def enquête am ba mu leer tek ci table procureur procureur nangu wuccee yéey nangu ci yàbbi Seydou bu Ndiaye jaxati ci bopam ne ko dossier bang ci sa table ñep gis ko deg lu tax rapport nag boobu bu ñu ko génnee yuuxu jib fu ñu ko foogeewul man maa la ko wax tey. ah bon lu leer laa lay wax. moo tax ñi gaaw si def ko non lieu. yow nga yaakaar ne bu Sénégalais yi déglu xam nañ ne bés bu Ousmane Sonko waxoon loo xam ne amu ci preuve rawatina ci dossier 94 duñ ko rate. foofu lañ koy jàppee ñu def ko procès kon. dañ koy def mais fast track bi ñu defoon ni bëggoon ko jàpp taxañ tëj ak ni ñu defoon xalifa ak ni ñu defoon kon nu koy def waaye dossier 94 milliards. du béton papier noir sur blanc ci une enquête da gis que romb na Diallo ñom li tax dossier bi ko génné xam nañu ko mais mais mais ah, ah, oui dossier 94 milliards Vous? jaratul ngeen ci sonu ndax def euh, non lieu Manam. existé tout. wa légui dama intérêt pour dossier bi bañ existé ti wala nguur du Pastef parce que ñun ñoo sulli yëf yi ñun dinañ sulli loo xamante ne nii. maanaam yéen a génne coow li. ñun ñoo ko génne teg ay preuve mëne suñu enquête ne leen ca place sàngam ña nga fay def ay looxoor yoo xam ne dina ñàkkloo askanu Sénégal quatre-vingt-quatorze milliards dem leen ngeen saytu ko daal di jël plainte bi dépose teg ko ci taabalu nag taabalu IGE taabalu procureur procureur génn nii amuñu droit déposé. d'abord ne président Pastef ne ñi ñëwaat di taafantalo na Ousmane Sonko amul droit déposer en tant que député yu kenn xamul allez léegi li ëpp solo mooy dénoncé nañ nañ ubbi enquête of nag mën enquête am teg rapport bi nañ génne rapport enquête mais yaa yaa am na y a une enquête euh, parlementaire qui a été déjà effectuée oh, oh, ah, mais ñom ñoko wax ni ma ne député yi dem xool nee nañ gisuñu lu jar wax Bassirou Gueye nu muy yàkkamtee ci dossier politique yi nee naa la quatre-vingt-quatorze milliards yi bu doon dossier bu existé wul la maanaam bu doon Ousmane lam ca wax amul kon Bassirou Gueye du ko raté. kon du xaar sax of nag. ah kon convoqué na ko léegi waaye lan moo am lan moo am mooy yëf yi dañ ko bëggoon a teg ci suuf mooy wax ne askanu Sénégal seen quatre-vingt-quatorze milliards moom na sax na parce que nee rek existé justice boobu nag nga xam ne. ñun wokkuñu ko ñu bokk ci biir justice bi ci boppam ñoo génn di ko wax gis nañ fi juge Amidou Deme gis nañ fi UMS ñoom Téliko et ñun Pastef bañ ni su fekkente ne ñii dañoo bëgg réew mi dox jaar ci yoon soo ñëwee la ngay njëkk a def mooy assise de la justice nga woo waa justice ne leen proposer leen ñu lan ngeen xalaat ne moo mën a tax ngeen def seen liggéey ci anam ya mu waree sans pression aucune bu justice waxee ne lii lii la dañu war a couper cordon ombilical entre exécutif ak justice ñu def ko su boobaa xam nga lan lay jur dootuñu fi nekkati kii naan man maa jël sama conc li teg ci dossier kii naan am na ñoo xam ne bu ma leen jàppee réew mi tàkk nangam sàngam déedéet justice mooy am liberté di def liggéeyam dootuñ fi nekkati naan Macky Sall moo tëj tëju diw moo nekk ci ginnaaw diw ndax day leer ku justice woo dañuy xam ne justice moo la woo parce que da ngaa wala défaut di nga setal sa bopp loolu mooy tax am réew am jàmm waaye justice boo xamante ne nii exécutif bi da koy phagocyté di ko utiliser mais kenn dootu ko wóolu effectivement waaye terewul ñàkk wóolu bi terewul président Ousmane Sonko bi mu waxtaanee ak ay kilifa diine ak ay waa partem ak ay avocat am mu ni donte respecté wuñ yëf yi dinaa xëy wuy ji jóg génn këram di dem Nye jist ni kast ki di dem ni, fomou jem jiz bofan ek, bofan dem ni ete mi, nyon blen bokite jiz bo, di nou kwa an, nyon blake kwa. Kreye penen sityasyon, le di nyon wak ki di jem ou wata e, apel al, nan yon seleksyon, di jem ou wak e, di stigmatize e, aferu etnisizans, sa di ke loutou mek nou ke genne, ben di jan gat lati am. Mwen ban. Mwen di alat se Senegal e, mwen di nge nyi, sove sen bop, kep, jaral na leen taal réew mi yëfi jaxasoo. waaw léegi jëm jaraluñu ko gis nga ku déglu président Ousmane Sonko def ni Sénégalais yi. bu kenn naan nan dem jëloose Macky Sall génn ko pale bi nañ ko bàyyi mu yeggali ndax la dal Mali bugguñu mu dal ñu la dal yeneen réew bugguñu dal ñu mooy lan sénégalais yi xeex ba ca cëppaandaw ga benn armée ñëw jël pouvoir ba ñi teg fa ku leen neex am nu ñuy doxalee ba li dal Mali dal ñu bëgguñu ko ci mim réew parce que ñun nag dañoo bëgg suñu senegal te pourtant kii fi nekk tey ñëpp gis nañ ko vidéo moo doon wax Abdoulaye Wade euh, euh, s'il recule pas on va aller le déloger au palais maanaam dañuy dem ko ci palais bi Ousmane de déedéet Macky Sall moom bàyyi leen ko mu yeggali ba deux mille vingt quatre mu dem waaw dama yéen da ngeen a sax ci justice fi tool toll nii yéen rëccagu leen di. justice bi am ci réew mi. Ah. yow moo dafay rëccoo ci justice de. non mais parce que defuma dara man. kenn non ah loolu nga ah, man ko man man man man man ma wala nga deful rek la amul problème. waaye su ma xëyee suba fii buñ la bëggee faagaagal ma suba fii ne moo dafay nangam nangam nangam. ay man. ay sos ah, man mais man. waaye danaa déposer plainte justice dina la woo. ndax du duñ la jaay doole tëj. ñaar non non non mais buñ ma mais est ce ma sosalee su ma demee soo yi ñu xam ne dara amu ci duñ ma bàyyi ma dem sama yoon. loolu wax ji loolu mooy justice boo xam ne. waaw wóolu nañu ko. waaw d' accord nga a la fabrication de preuve. ya c' est boo gis nga manque de confiance bu xasee ba am maanaam ñàkk kóolute bu xasee ba am rek amul dara loo xamante ne nii mën nañ koo écarter. encore une fois li ëpp solo mooy ñii. jangat biñu waron am ci yëf yi. mooy ba tax do tontu ci lima la wax ne la ba léegi rëccagu leen parce que affaire Adji sar bi fi mu twist lu go xamni boo xam setagul benen bi ci tegu gaay yi nee nañ da ngeen dem procéder ah, ah, ah, lool la loolu bok lool la bokk président Ousmane Sonko def ne procès bi nu mu gën a gaawee gën ndax ñun dañ ñoo yoni ba paré yakamti ñu askanu Sénégal daf ñu yoni yakamti ñu ku ñu yoni yakamti la nak doo bëgg dara lu lay tardé. xëy na bi daal xam na nekkatul mais bon. loolu sénégalais xam la. non bu xam nañu ko. non non viol bi viol bi laa wax de wax ma ko. waaw dama ne waaw mais plainte la woon du viol. waaw bi nekkatul kon plainte ba ana. non parce que parce que non non en fait ñoom sax dem nañ ba daanaka xaw nañ nangu lu demee parce que viol bon loolu beneen affaire la <laughs> mais mais loolu damaa bëgg wax ne ci ci réew mi ñu toll. moo tax ma ne la rëccagoo ci justice. jigéen mën a xëy rek sofal nit ci anam yu ni mel mun nar a taal réew mi mais kala ku da ko sos yow mii sax nangu ko ne amul benn amul bii dox fii nga woo ko nga laaj ko mu ne la viol am na c'est-à-dire liggéey parce que liggéey ni lépp ko firndeel PV lépp ko firndeel gis nga loolu nekkatul débat bi ñoom léegi kay débat bi fan lañ ko yóbbu force occulte terrorisme terme yooyu ñu utiliser xam nga ñoom dañoo dañoo defee muus laa yaakaar. est-ce que yaakaaru leen ne gouvernement bi. dañoo defee muus xam nga lu tax est-ce que le gouvernement au contraire. oui bu ñu yaakaaree mooy tax ñi rassurer ay France ak communauté internationale au contraire dañuy gën a ragalloo nit ñi parce que ñoom saa yu ñu xëyee léegi ñi ngi naan terroriste wala euh, écoute guerre entre ethnie. mais écoutez stigmatisation. waaw mais Malick dama ne dama ne. Euh, force occulte ci àdduna bi yëpp force occulte yaa ngi régné. yaa ngi comprendre ñi di ko xeex seetaan nañ ci 4 avril bu yàggul dara ci benn télé euh, ki kenn ci ci ci fu bi li mu wax dafa leer que ni mais armée bi mu ngi contrôler mu ngi gérer bu baax parce que ñun yàlla def na nag am nañ armée force de l'ordre yu xarañ gis nga bu amee lu fi naka su dul noonu ñoom nañu def enquête leeral sénégalais yi loolu amul benn problème xam nga. xam nga mooy ragal enquête koo xamante ne nii da sa loxo dafa taq ci dara wala nga dugg ci leen waaye ñun. mais force du ñu mas a complot mais écoute contre Sénégal. d'accord ndax xam nga lu tax. oui Sénégal la ñu am. Sénégal la ñu juddoo màggee fi yaroo fi amuñu beneen nationalité bu ñu complété Sénégal ñu na sax fan lañ daw jëm. mais léegi kat moo la wax ne gouvernement bi ak seen renseignements généraux yi ñoo xam lu ngeen xamul. wala ñu yëg lu ngeen yëgul buñ ñoom ñoo wara xam sax lu ñu xamul nak wa mais kon kay bu ñu waxee force occulte bu leen ko weddi dama ne encore une fois lolu ça n'a ça n'a jamais été euh, euh, un sujet tabou Sénégal bañ fi dalé wax ba légui ay mbirum xeexu terrorisme day am et c'est normal fokk ñu ar sénégalais yi di xeex terrorisme waaye ci dossier bi ni ñu bëgg ci profito parce que tamit nak lu fën ci sey nuyoo won na ci ngoraga te njëlbeen ka ñu ngi doon jéem a jiiñ te ay ay wahabit ay salafiste ay rebelle tey dossier bii am ñu bëgg ci génn di wax ay waxaat terrorisme di wax ay waxu yabal seen mercenaires yooyu ñuy taxaw naan ay gis nañ ay rebelle yu dugg ci ay. yan yan yan mercenaires yan mercenaires mais seen seen mbokk yooyu yéen da ngeen da ngeen da war a sax liggéey nag pour génn leen ci journalisme bi.

yaayu yaayam dëkk njaayam pi ndaw fuuta mère ami sow léegi moom fan lay far ci yaay ji wala ci papa ji man fan laay far samay doom fan la ñuy far ci man wala ci seen yaay loolu mënul am Sénégal gis nga ñiy tëb di wax loolu moo tax mën na la ñoom ngir sauver seen bopp jaral na leen jaxasu réew mi réew mi jaxasoo ñu buruxlu daal di dem jël euh, jox réew mi à force forces occultes wala jox réew mi ay ay ay ay ay armée yu ni mel moo tax ñuy wax fii Sénégal. li nga wax gouvernement moo la ko wax kala kala dama ne ñoom ñoo fi agité ñoom ñooy jaxase ñun waxuñu fi ay waxu xeet. Mhm. ay waxu waaso ay waxu diine. Ousmane Sonko ñëwee ba léegi lañ fi wax ay waxu diine Sénégal politique bi daa fi dégg ñuy wax ay waxu diine pourquoi ñu fi war di wax ne kii diine bii la bokk kii tarixa bii la bokk et cetera ñan ñooy wax loolu ñun waxuñu ko. non mën nañ sujet comportement peut-être. non mais déggoo li ma la wax question comportement xam nga la moo am solo ndax kii sénégalais la ndax jub na ndax bëgg na réew ndax Sénégal nak fol nañ fi catholique 80 plus de 95% Seigne Babacar Si radiyallahu taala anhu sëñ Fàllu di ko donc li am solo du ndax ki waaso bi la bok ki xeet bi la bok ki religion bi la bok ki tarixa bi la bok ndax ki liñu bolé muy Sénégal ndax sénégalais la ndax bëgg na réew mi ndax làmboo na jikko yoo xam ne buñ ko joxee réew mi mën naa soppi nekkinu askan wi loolu mooy li ëpp solo yaakaar naa ci tànnum njiit ndax nag ñi fii nekk di woote tarixa te xamuñu ban tarixa lañ bokk wala di jéem a wane ne ñoom ay sénégalais lañ ñu yor réew mi yaakaar naa ne doxalin wi ñuy doxal moom kenn nawlawu leen léegi euh, Malick Ndiaye yow mi yore communication bu parti bu Ousmane Sonko gouvernement bi soppee soppi na benn doxalin bu jëm ci emploi des jeunes gis nga ni activé secteur yu bëree bëri ah ñu bëri ñu ngi def ay réunion ah, trois cent nangam nangam quatre-vingts milliards ah, wut ay ay guichet dans les déports département et tout ça nangam nangam pour que ñu yokkaat lenn loo xam li trente cinq milliards encore trois cent cinquante sax milliards euh, gën a yokkaat daal yëf yi euh, xëy na euh, jeunesse bi am emploi peut être xëy na génnu xale yi itam am na lecture yu ñu ci def et dégg nga de l'état mu wax nee na dégg na message bi et tout ça ban lecture politique nga ci am. Haj Malick euh, boo defee booy yoree réew yor ko juróom-ñeenti at ba mu ba mu dese la ñaar ak genn wàll ñaari at ak genn wàll ngay dooraa wax ne dégg naa dégg naa leen ndaw ndawam. pour yow c'est trop tard pour yow c'est trop tard wala. loolu lenn rek lay mandargaal. Mhm. lajj maanaam échec. non mais attends mais mën nañ ma non mais. mais en politique en politique c'est un processus. Mm, benn procédure oui mais bon neuf ans. juróom-ñeenti at ci koo xam ne sax ay fukki at ak ñaar la ci juróom-ñeenti at yi li faale woo li jënti woo leen ba juróom-ñeenti at bay dugg sa fukkeelu at ngay wax ne dégg naa leen. di korkoraan di génne trois cent cinquante milliards. non mais mais bul mais mais bul wax faale woo leen faale faale na jeunesse bi quand même. lan mooy problème bi. oui problème bi mooy. te yàgg na leen alerte gis nga opposition président bu bu bu muus bëgg a defar réewam dafa war a jël opposition comme allié xam nga lu tax ndax moom moo lay wax ne sa bët bi suuf a ngi ci moom moo lay wax sa gémmiñ xasaw na mais waroo nangu ko. ke kul ñu naan la yaas gëna rafet yaas gëna xéñ parfum yaas gëna nangam kessé ngay ngay ngay tek nit gis nga bañ leen di wax ni da ngeen am problème priorité la ngeen di lepp ak biddewu sénégal di duggal dugal ci des projets pharaoniques dinañu dab ndax da ngeen inverse Senegal priorité yi sénégal am patch la soxla sénégal lek bu doy lay gëna soxla sénégal ndox mu la soxla Sénégal école bu baax la soxla Sénégal patriotisme économique bi permetre auto entrepreneuriat am fi loolu moo mën a absorber demande d'emploi bi ma jox la ay misaal yu simple hôpital bu mucc ay bu mel ni ay mat Matlabul ni dix milliards nga am ko équipé totalement à dix milliards à dix milliards maanaam quatre cent cinquante milliards quarante cinq départements yëpp am hôpital bu mel noonu université waxaale wuñu ko xam nga fan laa jëm mille deux cent milliards yi ñu sakk ci terre bi dañ ci doon am hôpital ci bu ne bu mucc ay am lépp scanner IRM lépp am ci ay université yu ndaw wala institut de formation professionnelle dans les quarante cinq départements ci li terre bi kese laa wax de. yow da ngaa non dama lay priorité bi dafa am solo gis nga loolu bu ñu ko defoon def ay unité de transformation industrielle partout dans le pays damay jël jolof ju ma dëkk nga xam ne cheptel bi fa la nekk maanaam njur gi am na mbay tamit am na commerce waaye jur gi litre meew yi ñu produire nga yaakaar ne tey bu ñu investiroon foofu def fa benn unité de transformation industrielle wala benn usine bu mag boo xam ne. dañu ne il paraît na ah. dafa nekk wala dafa. ay usine de lañ fa def maanaam loo xam ne day seddal meew mi pour meew mi bañ a wayak bañ a yàqu booy ñëw nga jaar jël sa siwo jënd cinq litres jàll Dakar balaa nga yegg mu way loolu lañ fa def man daara laa dëkk xam nga li am solo mooy dañu waroon a wax ni fii ak at yu néew meew moom duñ ko jéggaanee ci dañuy tabax foofu usine bu mag boo xam ne dina defar meew dina defar beurre dina defar fromage dina defar nangam su boobaa tund jolof kenn dootul ñàkk liggéey danañ fa def usine boo xam ne traitement peau waa ngaay dootuñ importer te ay peau Italie ak feneen der yi fii lañ koy traité dinañ fa def benn école de formation ay ingénieur agronome ñoo xam ne ci wàllu élevage ci wàllu nangam loolu mooy tax am réew mën a développe bu ko defee tund jolof waxuma la ne dootuñu am ñàkk problème mu liggéey waaye duñ soxla di ñëw nooraani di ñëw Dakar lampi Jolof af Dakar ñuy tancaloo nga dem Kaolack def fa lu ni mel par rapport ak la fa am bassin arachidier ak géej bi ak yeneen nga dem ci waalo nga def ko nga dem gis nga loolu moom mooy tax nga am benn économie bu structurée bu dëgër boo xamante ne nii déjà da ngay régler problème mu exode rural bi maanaam nit ñi kenn bëggul toog ñëw Dakar di fi si ñoom ñu bë quatre-vingt-dix pour cent askan wi ñëw Dakar toogoon fa nga xam ne fa lañ juddoo yaroo fa tekki fa moo leen gënal mais dañoo ñàkk pexe parce que dara amatu fa boo bëggee scanner sa bopp wala IRM sax da ngay obligé jël oto ñëw Dakar lépp loo bëgg da ngay ñëw Ndakaaru moo tax Dakar day fees nga naan léegi foog ma defaat autopont foog ma def TER foog ma def BRT parce que askan alors nga waroon a xalaat nan laay fexee man ba ñi ngi génn Dakar. mais jam ñaajo. mais da jam ñaajo ci Dakar la bokk di. waaw non d'accord non mais non non. premier problème mais attends mais parce que dañoo dañoo décentralisé. wax ci bi oui. problème bi mooy. boo nee da ngay créer deuxième ville. nga def ko ci même capital région capital mais mais elle est vaste la capitale est vaste en avant. ci maanaam sortie unique sorti terrestre unique bu Dakar. maanaam yoonu suuf bi nga mën a génnee Dakar képp muy jam ñaajo. pour yegg ci feneen bi def ci Sénégal nga ne da ko fay def ba pare. mais am na non attends dafa am autoroute dañoo tabax autoroute am ay voies de dégagement yu ñu fa def deux voies yi yëpp jam jam ñaa bi léegi c'est comme c'est comme xibaar tabax nañ ak waaw boo wàccee cinq jël autoroute balaa nga yegg jam ñaajo vingt heures jot lan moo tax xam nga man li may wax encore une fois dafa am solo xam nga lan nga lan lan moo am solo naka lañu war a def. décentralisation du ay waxi kese ak i projet ki kese naka lañ war a def ba nit ñi des fa ñu dëkk gënal leen di ñëw ndakaaru ndax ñëw ndakaaru bi ñàkk pexe la te loolu munoo ne damay ñëw créer une ville nouvelle à ñaajo mooy la mooy ci même région bi nga xam ne fa la nit ñi di ñëw fa laay créer loo xam ne nee naa damay désengorger région boobu maanaam dama bëgg région boobu féex ba pare ñaajo suuf si baaxul maanaam boo doon tabax tey ca biir Thiès wala sànjara buñ ko fa doon def xëy na foo dépensé fukki dërëm ci jam ñaajo foofu juróom benn wala juróom ñaari dërëm nga fay dépensé ndax suuf yi bokkut ban la et cetera et cetera yaa ngi gis ñu naan la fissure yi am ci ci immeuble yu bees yiñ fa tabax ak yooyu parce que suuf sable euh, argile la day gonfle day dund donc ba pare nga def ko ci diggante ñetti usine cimenterie ak usine charbon ana pollution ba est-ce que yaa ngay sóoraale ñu dëkk parce que Sococim dafa nekk nii Dangote nekk nii ciment du Sahel. mais nag wax dëgg yàlla nag. gis nga environnement. non loolu spécialiste environnement yi soo leen invité dinañ la ci wax lu leer. problème bi du question euh, ay distance yaa yaakaar ne distance bëri na jam ñaa jóg Sococim sorewul mbëba sëñ ci genn wet gi euh, usine centrale charbon ba ci genn wet gi Dangote a ngi puut puut ak jam ñaa dafa sorewul donc encore une fois li may wax. mooy gis nga économie am réew soo koy yore doo tëb rek di di di tëb di dal di tëb di dal. waaye taxaw nga ne man lii laa bëgg. programme lañ def de. Mm-hmm. gis nga bi muy wax nii ne pour emploi des jeunes dañuy def ay antenne régionale est-ce que xam nga ne ci suñu programme jot na bi ñu présenté woon Sénégalais 2012 loolu lañ ko proposé. même chose pour yow. ñun. loolu lañ proposé moo tax nee nañ leen programme jot bi nañ ko jël développé xam nga la moo ñu ëppal solo. Sénégal dox tey waxuma dañu plagié de même bu ñu plagié woon dañuy jàpp ne lu baax la xam nga la moo ñu amal solo programme bi ñu defar jàpp ne lii moo mën a defar Sénégal ku ko defar avant ñun falillaahi alhamdu bu ñu ñëwee day gën a yomb si ñun waaye waxuñu ñun kese ñoo ko war a defar déedéet gis nga li ñuy bëgg mooy nañ jël programme jot na bu ñu bëggee sax nañ ñu convoqué ñu ñëw ñu expliquer leen ko ñu déroulé ko parce que bobu ñu nga leen ci wax fonds yi ñi def ak naka parce que affaire bi du jël xaalis rek di jox ay dér ak nangam accompagnement la enquête yu sérieuse la xam ci gox bu ci nekk yan type d'entreprise lañ fa wara monter et cetera et cetera boo demee ci goxu Jolof nga né da ngay monter entreprise bo xamante ni pour nap la du dem bokkuñ. déglu nga déglu nga discours 4 avril bi. déglu naa ko. ci jang déglu naa ci bi muy paree laa ko dégluwaat waaye li ma ci jàngat mooy koo xamante ne ni déjà mbir mi njëkk mooy li xew ci réew mi ak fukk ak ñetti bakkan lu mu néew néew wa wadd ci des ci te xam nga fukk ak ñetti bakkan yi man am naa liste bi ay entre douze ans la quinze ans vingt ans am na kenn ku ci am plus de trente ans. yéen tax na gars yi nee nañ de. ma ne gars leen provoqué ah gars yi loolu lañuy wax de ñan ñoo doon tiré ay bal ñan ñoo jël ay nervi nervi yi doo ci wax non man nervi yi kay laaj naa ku ci bokk man kay nervi yi ku ko indi nee naa léegi nervi yi fu mu dëkk doon tuuma posé nañ ci question léegi nervi laa mais la nervi ñoo ñan la nervi yi day xam naa ne lii nga xam ne sénégalais gis nañ ko mooy ànd nañoo ak policiers yi di jàpp ay ndaw di dóor yaakaar naa ne mën nañ nekk ay civil dama ne des policiers am na non nañ ko assumer buñu assumer nay policier civil la ñi doora li jënt question boobu waaye ñoom nanguwuñ ko assumer xam nga encore une fois dañoo yàq ci la république mais juste un discours Bob. lamu cey wax encore une fois moy woné ak laj ndax bo bayé bu mu vous la lu yees ñetti at ngay taxaw ne dégg na légui Non, ci économie non non non ñaara discours ma discours 4 avril la wax. wa 4 avril. non bë non bële bi mu dox naan bon bu xale yi génne après bu amee médiation génn na mais bërki démb la quatre avril ci lay waxaatee ay waxu euh, jeunes yi ak waaw mais waaw loolu emploi bi la continuité la dama dama bëgg a wax ni loolu dafa wone ak lajj encore une fois day comment comment comment avril yi njëkk yi daawuñ fi ñëw pour di dérouler ay programme déedéet dañ daan ñëw jaajëfal armée bi jaajëfal nation bi wax un peu ci ce qui a été réalisé mais bii ils ont senti le besoin de dérouler encore un programme dañ leen a yàgg a wax ca njëlbeen que plan Sénégal émergent bi ngeen tek du mujjé luddul plan Sénégal endetté waaye tamit mënul développer Sénégal bi parce que dafa extraverti manam fa ngeen war def moyen mi secteur primaire ci agriculture bi Dès qu'il les moyens nécessaires ba am une agriculture moderne une pêche moderne un élevage moderne mais ma daaneel foofu rek ngeen lolu ba paré deuxième pilier bi important té ñom joxuñu ko benn importance moy le moy le secteur secondaire manam industrialisation gis nga le mali tant que li ñuy liy meññee ci suñum réew ñun mënuñu ko soppi ci suñum réew jëfandikoo ko jël la ca la ca des ñu jaay ko bitim réew mën naa laa wax ne fii ba téeméeri téeméeri téeméeri at dañu we di des ci guuta ndax loolu moo développé réew yépp man damay rus suma gisee ni nguur gi day puukare woo ni ren exporté nañ nangami tonne gerte nga exporté ko Chine. mais Malick doo ma déglu xam xam nga yow damay damay bañ gars yi di lay déglu naan kii seen nihiliste. du ma nihiliste waaw mais tey mais yow li nga wax ni mooy lan le 4 avril discours bi ñëpp déglu nañ ko. waaw ah. Macky Sall mi ngi accéléré affaire yi ba wax sax day def ay conseil présidentiel yoo xam ne ci mois d' avril bi jàpp mois de mai balaa boobu ñu ubbi ñu ubbi baral ko génnee taf taf taf xool nu ñu amee xaalis bi nga naan ay. programme waaw mais xam nga xam nga tamit nag xay man gis man nag man nag yéen a ngi bëgg a jaxal sama bopp non ñun du ñu wax lu amul gis nga dañu wax ni dama lay jox benn exemple pour te dire que duñuy gis nga programme yi di PUDC ay promo ville euh, ak yeneen Puma yooyu ñun dañuy jàpp ne loolu mooy programme yu baax yi mën a développer réew waaye programme yooyu as tuut lañ fa def ndax ndax moom moo ndax moom moo féetewoo monde rural bi la def ci ay ter mille deux cent milliards stade euh, olympique plus de cent cinquante milliards def ko ci ay ay dépenses pharaoniques ak yeneen ak projet suñu ko defoon ci programme yooyu mooy ëppal njariñ askan wi encore une fois mais xam nga dafa am yu bëri yu laxasu ci ginnaaw yow bu fekkente ne sa lépp ci leb nga ko basé boo ko basé ki lay lebal moom dalay wax ne def ko ci secteur boo xamante ne nii man après samay société dinañ ci mën a ñëw liggéey banque mondiale ak ay FMI e ak les institutions Bretton Woods ñoom danaa la déedéet gis nga social bi bu ci def xaalis parce que social bi du génne donc seereel ceinture salaire wu enseignant yi hôpital bi ak yu ni mel xoolal noo ko wàññee wala ngeen wax leen ñu seere ceinture investiral ci tali yi investiral ci train yi investiral ci nangam. mais mais waaw gouvernement gouvernement bi daa deful li ngay wax ni ma ne. ku la wax def gouvernement bi nga am problème. def ko ba léegi ay suñu ay ay doom yu bëri bëri bëri ci ay sàkket la ñuy toog di jàng ak ci bas ay basang ba léegi yaa ngi gis suñu ay yaay ak suñu ay bëjjan di di di wasin ci ay sareet. waaw mais abri provisoire yi c'est c'est rek. gars Sénégal million millions million millions sénégalais dong la képp rek ñàkkuñu dara dara ba dara boolu du ndox du géej du ay meññeef du ay ndaw yu nangoo liggéey du du suuf su nangu du nawet bu baaxul lu nekk am nañu ko ba mu des ay njiit yu baax bu ñu amoon ay njiit yu baax yoo xam ne dañoo ñëw rekk ngir liggéeyal askan wi te bañ a liggéeyal seen bopp mën naa ne fii ak fukki at benn sénégalais du soxlaati naan day génn wuti feneen diaspora bi li ñu mën a indil Sénégal waxuma la ci jël xaalis ak di yónnee mais ci ay projet ci xam-xam diaspora bi encadrement diaspora bi ngeen di yëngal foofu xaalis jàmbur yi naan ay cent vingt cinq millions dans quelques jours dem di def ay quêtes yoo xam ni. mais entre looy non gars yi nee nañ baaxul. gars yi nee li nga gars bi nee loolu. fu mu jëlee xaalisam rek ma tontu la. fu ngeen jëlee seen xaalis. APR fu mu jëlee xaalisam. APR. waaw ah man APR man ñoom ñoom gis ma la ñuy def képp. waaw non dañoo bëri ko jëlee. gis gisuma leen ñu def ñaari meeting def Fuuta moo ëpp ñun li ñu yalwaan comme yalwaan nga ko tuddee. ah yéen dem tàllal seen loxo yéen a ko wax ñun dañu ne. dimbali leen ma kay mooy dimbali la ñuy liggéeyal déglu rek. waaye léegi dimbali leen ma lu muy firi. dama ne dañu ne Sénégal dimbali waxuñu Sénégal yi dimbali leen ñu de. Ah. dimbali leen seen bopp xam nga lu tax. ah jàppale leen ma ma falu naa. ma ne Pastef du parti politique. Pastef moomeelu askan wi la. ndax dafay ñëw pour soppi nekkinu askan wi donc yor nguur ndax Pastef moo fi def ay programme yoo xam ne ne nit ñi dellu leen ca kaw ga ca suuf ngeen bayi ñëpp jóg demaat bay mais est-ce que xamul am est-ce ne réer woon y a une loi y a une loi qui interdit que des étrangers Pastef yorul nguur te Pastef mooy def saa yu don de saa yu euh, deret manqué ci banque yi mu woote ay militant am dem maye ba banque yi fees yorul nguur moo fi organisé ndax Covid am na muy distribuer encore liñ gis nga li. non non non non non non Covid eh, eh, eh, Malick Covid bi ñëpp ci jàpp. waaw ñëpp ci jàpp waaye dama ne ci jàppee man. mais yéen waaw comme yeneen comme yeneen parti politique yi jàpp jàpp nañ ci xam nga lu tax. waaw ah. dañoo jël ne def nañ ci mille milliards ba léegi ñun xamuñu mille milliards yi naka lañ ko defee. soixante cinq milliards ceeb ak dawlin ba léegi nanguwuñoo leeral askan wi naka lañ ko defee. mais yéen kan yéen kan ba leen ko compte rendu non non non d'accord non mais mais vous waaw d'accord mais vous formez un parti politique. non ay Sénégalais la ginnaaw parti politique man su may wax nii waxuma Pastef dama ne. parce que nga wax li nga wax ni politique non dama ne du Haj Malick nee jël nañ sa juróom-benn fukk ak juróom milliards jënd ci ceeb ak dawlin ak suukar. séddale ko Sénégalais yi. mais joxe nañ ko xanaa bu ñu paree di dinañ wax ni. juróom eh, fii lañ ko jaarale. nii lañ ko defee mu leer waaw Mansour Faye li mu def lu mu tudd. bañ ko convoqué def na du dem. ah bon ah, yaa ko fi dégg. mais il a expliqué quand même. lam def na du dem déet expliqué wul ba léegi nee naa la ba léegi nit mënu laa wax à ñoom kenn mënu laa wax ni fii lañ jaarale xaalis boobu. encore une fois. Mhm. gis nga am réew. bu fekkente ne bëgg nga réew mi defar ko rek tax laa jóg. wax fa dëgg yàlla waroo sax xaar. ñu naan la leeralal ni ngay doxalee leeralal nangam ak nangam gis nga maa ngi ko doon wax sànq nga nga dagg ma li tax ma naa lu ma la doon wax ne nañu jël programme jot na parce que Pastef ci wàllum programme ak ci wàllum wut xaalis ak ci wàllum mu euh, ñuy politiquer du loo xamante ne ni El Malick Ndiaye mooy tëju ak Ousmane Sonko ne nañ def nii nañ def nii déedéet ñëpp ciy dugg mi programme beeg mi yëpp lolu tax day nek lo xam askan wé défaral bopam limu bëgg mais du ñaari nit ñetti nit ñoo tëju wala comprend Sénégal émergent dem fay ay étrangers ñuy défaral le plan bu wara développer sa dëkk yow encore une fois fofu le problème bi nek lolu tax sénégalais yi gis seen bopp ci passé gis sen bop ci ñi ñi doxalé ba bo leen waxé né ah projet bi kat fi mu toll nii dañoo bëgg wër Sénégal waxtaan ak sénégalais yi gën a sen ay jafé jafé sen ay bëgg-bëgg parce que ñoom ñoo la gën a xam seen i jafe-jafe waaye ñoo la gën a xam aussi li mën a saafara seen i jafe-jafe askan wi ñun dañoo yaakaar ne dañoo toog xëy na ci banc tubaab nangam sangam rek que ñun ñoo xam lépp déedéet askan wi ñoo la mën a jox solution bi ngeen mën a seen wu seenu nekkalin ñu ne nag pour ñu dem di waxtaan ak askan woowu dina am as tuut lu mu soxla na serait-ce di déplacé wu di am carburant di nangam di nangam donc su ngeen ci gisee seen bopp. booloo leen dajaloo participer. ay sénégalais yi nekk fii participer. sénégalais yi nekk ci diaspora participer. ana problème ba. waaw d' accord yëpp xam nañ ci problème bi ne ndax am dañ leen interpellé woon par le ministère de l' intérieur d' accord loolu daa ci dikkaat parce que gars yi nee nañ c' anti loyal. anti légal dañ leen a génneel li Macky Sall waxoon rek ne sama caution bi diaspora bee ko fay les sénégalais de l' étranger. jeex na ngeen ngeen martinil. da <laughs> ah dit loolu nga ma bëgg a wax parce que lu jaadu la yow. sénégalais yi ñoom nee nañ sénégalais yi dañuy voté yi nekk ci diaspora bi ay sénégalais lañu dañuy sax am député léegi ne mooy quatre mooy mooy mooy mooy quatre euh, quatorze quinzième région waa sénégalais yooyu nga ne la amuñu droit ñoom participer ci seen doxalinu parti wala seen nu réew. xëy na étranger lañ doon wax waaw bon léegi. waaw d' léegi yéen sax est ce que da ngeen bokk ci élection yi di ñëw incha allah. amul élection bi am Sénégal te duñ ci bokk. ah gars yi seen dañoo nekk ci guddi gu setagul di man gis naa fii ay ministres yu ne ci ñan la setul ñun de bu leen bu leen justice bi jàppee nag bu leen ah, ah leen àtte procès bi du leen ci dem bu fekkee da xam ne leen téyam déet xam nga loolu koo ah, xamante ne ah mais eh, dégg naa gars yi di ko wax de naan naan bàyyi leen rek suñu kii ba àtte procès bi nañ ci kase bi nii faf nag àddina loolu ñoom ak sénégalais yi xam nga ah ba wóorul de noo déglu rek dama ne Macky Sall moo la gën a xam fukki téeméeri yoon ke ni bu ñu fi dund gi bàyyee rek un yalla fi dinañ local bokk législative bokk deux bu justice candidat parce que suñu lepp en ce moment vous êtes inculpé hein. non déggol li non on n'est pas inculpé en ce pour le moment non on n'est pas inculpé on nous a accusé on n'est pas inculpé xam nga xam nga la may. ñoom ñoom depuis oui xam nga tey moom c'est très simple. saa yu ñu xëyee man suba mën nañu xëy ne ma Malick nangam gis nañ nga def transfert u xaalis diw ak diw ak diw kaa ñu jàpp la après dem wuti preuve man kaas yi kenn mucc ci gis nga réew mu amul yoon kenn mucc ci journaliste da ngay def journal pare ñu ne la yaa wax li waroo ko wax kaay jàpp tëj réew mu amul yoon moom kenn mucc ci mais li ma bëgg a xamal li ma la bëgg wax te xamal la ko hmm. xamal ko sénégalais yi mooy mbir mi dafa dépassé président Ousmane Sonko yëf yi projet la boo xamante ne ni projet wu Sénégal le salut du Sénégal maanaam Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bëgg moom la Sénégal ay bëgg projet boobu képp ku ko bëgg a gàntal yaag askan wi la te yaakaar naa ne li xew bu yàggul wane na ko. d' accord waaw waaw loolu waaw loolu wax wolof la waaye laaj maa di d' accord parce que am na juróom fukki minutes yi ma soxla woon ci yow e, am na solo trop léegi looy looy tëjee. ah li may tëjee de mooy di delluwaat rek. Mhm. di nuyuwaat ak di jaajëfal waa Jolof. ginnaaw li ma jaajëfale waa Sénégal yëpp waaye nag ah Jolof. fief AP fief APR la. Ah. ban fief APR. Jolof. yow Jolof ak Linguère boobu leen mënal. xam nga. Ah, ah, xanaa lu ma yëgul waaye day bala ngeen fa am dara day xam nga boo xëyaatee fan yi bu côté bu ngeen amee jot demaat leen jolof la woon wonni na de ah bon waaw kon nag gars yi yéen a ko déggul la woon wonni na te mhm. yaakaar naa ne eh, ñoom bu ñu amee fit daal nañu gaawtu rek organiser élection locale yi loolu lañ leen di wax nañ respecté calendrier républicain li tax bëgguñu organiser c'est li tax bëgguñu ko organiser di daw di daw dañoo xam ne fépp seen nattukaay yëpp yi ñu def yëpp. wane ñoom ñoom nee nañ ñoom nee nañ pare nañ de. wane bu ñu paree nañu organiser yow xam nga tamit nag pare naa ba pare nangu woo organiser deux mille vingt et un bii nañ ci organiser local. deux mille vingt deux ñu organiser législative bu boobaa deux mille vingt deux ba deux mille vingt quatre li ñuy wax ko cohabitation mooy am Sénégal maanaam nguur goo xamante ne nii. Euh, ku jéeg politique am moo la ëpp doole ci biir assemblée nationale bi moo la ëpp doole ci collectivité territoriale bi collectivité locale donc encore une fois yow li nga ni am mbettaange waaw am ah, baax na ah, tamit ku nekk xam nga li nga liggéey d'accord donc encore une fois sant sénégalais yi euh, di jaajëfal di masawu njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am ñu wàññeeku mhm. ak mbooleem ñi nga xamante ne ni tamit jëlee nañ ay gaañu gaañu ci yëf yi di fàttali rek ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi tey nañu xam ni am na ñu ko yoroon avant ñoom dem ñoom ñu yor ko tey suba dina ñeneen ñu ko yor ginnaaw suba dina ñeneen ñu ko yor nañu fexe ba li leen des rekk waay ñu góorgóorlu ci jéem a dabu ci soxlaay askan wi waaye bàyyi ñu lu mu bon bon bon réewum jàmm bi nga xam ne moom lañ fi fekk nañ ñu ko bàyyil ni mu mel bu ñu ko yokkul jàmm jooju bu ñu ko yàq te seen discours yooyu ñuy tenir muy Malick Sall muy Aïssata Tall Sall muy seen journaliste boobu noonu may bañ a tudd turam ak ñeneen nañ lemaat seen discours yooyu dugal ci seen poche te xam ne askan wi yeewu nañ xam nga ngay jiitewu askan yaakaar ne yaa leen gën a yeewu fekk askan wee la gën a yeewu téeméer junni yoon te li xew bu yàggul dara wane na ko encore une fois ñu ngi leen di ñaanal yàlla dellu seen xel ñu mën a dabu jéem a li leen dese ñu rafetal ñu jëlaat suñu réew defar ko ndax loolu la ñu am di sant sénégalais yëpp. jërëjëf El Hadj Malick Ndiaye mi yore wàllu communication ci parti Pastef bu euh, Ousmane Sonko ñu ngi sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi di doon ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm incha allah beneen dimanche daañu di kat ci beneen gan wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup merci.